asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 24 novembre 2020 ñëw njëglikaay suñu lamb li ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey ku mu xëy fasal mooy ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ak Youssou Ndour borom super étoile mel ni kii nag ka nga xam ne nii daal moo di Youssou Ndour moom que mu xëy di interpellé di wax ak moom du kenn ku dul ki jiite réew mi muy président Macky Sall lam koy xam la nag maanaam ouverture saison bi daal la ko xëy di ko ko xamal mel ni kii nag loolu daal yëglikaay bi di sunu làmb xëy na tey ñëw ci ndax Youssou Ndour ku ne gis na ko samedi ak fii tayam ba nga xam ne mu ngi ko doon def muy lu neexoon daal taxawaaleel fa daal wax fa lu jëm ci mbiru làmb ji moo tax sunu làmb ñëw tey xel ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki nag lamb jooja moom bu fekkente ne yuusoo ngay wax ñu ubbi ko itam li am ba des daal maanaam buñ ko ubbee moom li am ba des yëglikaay bi di suñu lamb daal xamal nañu ne yi soq a gàmmu géy mooy nekk combat boo xam ne moo nar a ubbi la nga xam ne moom moo di saison bi keneen koo xam ne ni moom combat am ñu ngi koy xaar muy tafaatin diggante ak Boy Niang daa mel yëglikaay bi di suñu lamb tamit xëy na tey ci dànkaafu goo xam ne daal ci la koy dànkaafu ci mbir moom nga xam ne ca la jëm keneen koo xam ne ni moom ka muy dànkaafu muy kam war a dajel muy armée bu benn baraag armée daal fëgal xëy tey di ko dajeel ma di ko boog dànkaafu lam ko xamal daal defet la jàpp ne daal ci biir combat moom xaaru ko ci te du ko ci am maanaam daal kon li mu gis mooy armée daal jàpp na ni fëgale moom fu ñu jaar ak fu ñu mënti ñëw daal dana ko daam yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki doon beneen combat boo xam ne ñu ngi koy xaar ba tey muy combat royal bi yëglikaay bi ñëw na ci tey muy diggante Modou Lo ak Ama mel ni ki nag ñaari mbër yi moom soo bëggee dégg moom sàn nañ ya ci semaine bi ku yeboo xaar ko ndax ku ci ne am na conférence de boo xam ne daal war nga ko amal wax mel ni ki nag yëg li kabiri suñu làmb jàpp na ne daal ñoom seen règlement de compte ci mbapat la juddoo woon muy Ama di Modou Lo ñaanaan ñaar ñoo xam ne ni moom ba ñu abi waree suuf la ñu war a bëree ay coow daa amoon ba làmb ji mujj ñu ko bëree muy Alioune Seye ak ñàkk jariñu ñu ajoon leen ay seen yëkkati dagg seen ay xaalis mel ni ki nag maanaam kuréel gu bees kii fi ñëw jiite làmb ji léegi jéggal nañ leen baal leen daal lépp loo xam ne ñu ngi leen ko doon toppee mel ni ki rek Alioune Seye de ginnaaw bañ leen baalee moom la muy laaj fi nekk nii daal ñu ngay seet ñoom yan yoon la jaar ba nga xam ne nii daal dinañ gis ki nga xam ne mooy jël place su Maysa Ndiaye ma nga xam ne moo nekkoon ca Thiès te jiite woon la nga xam ne nii moom moo di CRC ba nga xam ne moo nekkoon ca Thiès yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy ñëw tey di a sa yi nga xam ne ñoom yore mbëri tey ji daal ñoom lañ fas yéene waxtaanal ñu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ca ca record record moom la mu ñu xëy di xamal daal mooy ka nga xam ne moo di rëg-rëg coronavirus ba daal tax na contrat ba nga xam ne ni daal moom la amoon ak waa ARES daal daa ni contrat ba ah ndax yàquwul mu expiré boog ndax boo xoolee date ba daal daa mel ni corona ba moo fa jaar yàq ko yëglikaay bi di record xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na tey séq ak moom waxtaan muy Khalifa Diouf moom nag am na juróom yoon champion d'Afrique daal gagné na ko ci la mu xëy di xam ne daal jàpp Maria moom amuñu fa place moom daal lii la xëy tey di ko wax moom xalifa Diouf ba tey bu nu continuer mel ni kii dëkk record ak ñuy xamal daal doxalin wees yi nga xam ne nii daal moom la Bira Sène entamé fi mu nekk ni muy lu bees yëg likaay bi record ba tey xëy na tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye yàgg maar ba tey bu nu continuer wala boog dañuy dellu fa nga xam ne moo di sunu làmb mel ni ki nag Youssou Ndour ma nga xam ne moo ubbi woon likaay ba daal dañuy demaat ca tuus ya fekk ko fa Youssou nag yebaloon na ab délégation fa nga xam ne moom mooy ca kër Balla Gaye Ndour ca Géejawaay ñu demoon daal maanaam jaale ji koo xam ne nii moom moom mooy Farba Ngom mi ñu xam di député di ab maire itam daa mel ni Mbaye Guèye ma nga xam ne ni daal tëdd na ci lal hôpital yi feebar daa mel ni jabaloon na doomi Mansour Mbaye ak Gris Bordeaux ñu demoon daal jàppale ji ko ci wàllum feebar mooma ba fas yéene nag sax jële ko fa mu nekk ci clinique yóbbu ko ci beneen clinique boo xam ne daal mooy gën a baax gën a xéewal gën a mucc ayib ngir mu mën a wér jóg demu yoonam ki nga xam ne ni moom élément Youssou Ndour la di Lamine Samba moom la mu def dafa rëy waaye lu neex a neex la ñetteel la takk yàgg maar Lamine am na benn ñaar ñett ñetteel xanaa kon yàgg nag fi mu nekk nii war ngaa góorgóorlu décembre bi dugg na de Lamine Samba am na ñett man maar ma am benn yaw amagoo waaye maar yàlla na nga am. maaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fu ngeen mën a nekk rek si àddina bi ah. tey nag ni ngeen ko xamee ñu ngi ci mardi mu tombeek le 24 novembre ah waaw tey la mardi 24 ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te di ko saaku ci yéen. ñu wax ne fu ngeen nekk di ñu sagoo ko ndamoo ko bégee rek ñu nga fa ñun tamit suñu xol a ngi ci yéen ak suñu xel du mës a jóg ci yéen ndax nag dooley jën ndox la waaw te wax dëgg yàlla bu ñu nee dooley jën ndox la defe naa yéen yéenay dooley li ñuy liggéey yéen a koy dooleel ndax yéenay jënd ay connexion di ko seetaan di ko commentaire kon amuñu seen fay waaw dafa fekk ne nag xëy na ah dinañ bëri bëri waay goo xam ne doo mën a lim ñëpp rek mais ñu yéen ñëpp laay wax rek ñu ngi ciy nuyu fu ci waay mën a nekk rek di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow xam nga suñu gaay yëpp ñoom Adama Ndiaye ñoom Arona Camara ñoom Ndongo Fall xam nga ñoom Abdoulaye mbay ñoom ñëpp Mamadou Kaolack Diallo yéen ñëpp gaay yi ñoom Tuuti Yaay Sarr Xaaji Rose Ndiaye ah Asi Diagne sama naar bi borom Nouakchott Awa Diop Touba yéen ñëpp ñëpp ñëpp bu ñu limee dinañ jum fan si club Babacar bi tamit noonu la ñu mel ñoom grand lay jiga Pape Ndiaye Pablo ñoom Cédric Marcelin du yàlla fa saaxoor yéen ñëpp maa leen di buy ñoom grand ñoom ji ah, ah, Mame Gour Diazaka Jib Sène fan si club Leewtoo bi tamit ñoom Cissé Ngaar yi fan si club Leewtoo ak Babacar ñoom Cissé ñoom Arona Camara wax naa ko sànq ay Adama ñoom ñëpp maa leen di bëggee gars yi fa nekk yëpp xam nga ñoom saa tëng ma mu ngi fu ñu waaye di bëggee daal ñu ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow tey nag bu ñëwee ci yëglekaay yi di sunu làmb ah ka mu xëy fësal mooy njiital Super Étoile ak ki jiite réew mi muy ñaari njiit Macky Sall président de la République son excellence ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di ko ñaanal gouvernement am buñ ko ko ñaanalee nag moo ñaanal nañ ko réew mi yëpp wax ndax da la ma Abdou doon wax dabaax rek bu duggee ci gaal gi bul ñaan sa ëmb mucc ñaanal gaal gi mucc bu gaal gi muccee sa ëmb mucc ëmb yëpp mucc kon loolu la ñuy ñaanal président maanaam bu muccee ci li ñu ko dénk réew mi dana mucc ñun ñëpp danañ mucc kon loolu lañ koy ñaanal ba ba yàlla lay def bés ñëw moroomam remplacer ko ndax loolu mooy àddina demal maa ngi ñëw du mën a ñàkk ñu koy nuyu di nuyu tamit ki nga ne moom mooy njiital Super Étoile di njiital groupe Futurs Médias mu Youssou Ndour lañ koy ñaanal ndax moom itam yor na gaal di ko joow dañ koy ñaanal mu mucc bu ko defee ñamu yor dana ñu mucc ndax moom itam defe naa ne tey ah, lu waay mën a wax lu waay waxati waxati boo gisee ne nena ngi am na taxawaay bu mu am bu mu amee ci réew mi boo xam ne ni defe naa ñun ñi nekk ay jeunes war nañ ko mën a roy ci maanaam fonk sa bopp fonk sa liggéey jox sa métier ak ba yàlla def ko tey mu nekk quelqu'un boo xam ne ni royukaay la ci àddina bi mais rawatina réew mi mu dëkk muy Sénégal bu waxee Sénégal nag defe naa ñun kenn duñ ci gën a ñun bawal bawal ndax lu nit ñu mooy que Youssou Ndour bawal bawal la ci bàyyi waaw mu nga boo fa amancé yaa nga dugg Kaba dugg altu ndàngal ma def droite dem ak yaay wala nga def gauche dem làmbaay kon noonu la demee moom nag moo xëy tey di xamle ne daal ah ouverture saison bi daal di interpeller président waaw Youssou moom defe naa loolu boo ko waxee waxal nga ko ñëpp parce que tamit fi nekk ni amateuru lamb yi comment en commençant par man ndax Babacar balaa micro amateuru lamb la ak ñeneen ñi mel ni ki man fi nekk nii lu ñuy xaar lu dul saison bi ubbi loolu rek lañu bëgg a dégg fi nekk nii maanaam kañ la ubbi saison bi parce que namm nañu mbër ci géew bi namm nañu touché namm nañu wayya xam nga ak dimanche bi retrouvaille bi lu lépp namm nañ ko waaye nag dafa fekk ne que na lépp corona moo ñu ko yóbbu tamit naa ne lu mu war a wax la ndax doomi réew mi la te itam mu ngi ciy bay waaram la preuve organisé na fi ay événement ak groupe bi nga xam ne moom la jiite wala mu teg ko ci ay loxoy nit ba gis nga bi ci mujjaat muy soq wala boog guy gi ak ka nga xam ne moom mooy rëg-rëg ci bo ka nga xam ne moom mooy ba tey ci groupe Futurs Médias la ka ko ne ca bopp ba di ko doxal muy maaw si suñu frère ñu koy nuyu di ko jaar waa di nuyu groupe ba yëpp ci yëglikaay bi ñëw na ci tafaatin boo xam ne nii ah taxawaayam bi mu waram daal ci digganteem ak Boy Niang bii muy combat boo xam ne daal combat bu diis a diis la waa xam naa daal amati na xale bu dëkkati fan pikinati ndax la ko naqari woon pikin googa la ko jëloon ci digganteem ak Ama Baldé tey nag duggati na fa war a tey keneen koo xam ne nii moromam Ama Baldé la ñu bokk pikin ñoom ñaar muy Boy Niang muy combat boo xam ne daal ah li ma xam daal mooy ku ci yox-yox yi tuuti da nga ko ñàkk te combat la boo xam ne amateuru lamb yëpp koy xaar nag te ñëpp ko bëggoon muy Tapha ak Boy Niang ñu ci félicité Pape Thialis Faye ak waa Leewtoo yi nga xam ne ñoom organisé bis bu mel ni ki noonu yàlla nañ ko yeggale ak jàmm ba tey bu ñu continuer eh, keneen koo xam ne ni moom dafa xëy di dànkaafu muy armé daal moom jàpp na diggante ma fëgale moom defet xalaatu ko fa sax maanaam daan daal la gis wax loolu nag yàgg na ci làmb ndax mbër mu ne moom bu ñu la joxee avance nga war a bëri ji la ngay wax sa adversaire mooy xalaatuma daanu waaw loolu xam naa daal dinaa ko xamal moom armé na adversaire ah même bu la jiito si làmb mag la waaye nag nekkul mag muy bàyyi gu nag yàlla day bëre day xeex kon daal jàpp naa ne itam bés la boo xam ne bu yegsee yàlla nañ ko fekkeek jàmm danga gis làmb ju neex ñii moom

ne à bu wàccee si làmb ji beneen combat boo xam ne tamit amoon na fi ñu sanctionné woon ñaari mbëri muy Alioune Seye ak ñàkk jariñu bañ leen dindee seen sanction fan yi nag te CNG bu bees bi def ko Alioune xëy na di laaj reliquam maanaam daal lañ ko téeloon xaalisam boobu ba fa desoon nañ ko ko jox waaw loolu defe naa itam am na droit laaj ko ba tey ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi la te comme dañ koo dindi sanction ya dindi lépp luñ

amoon na ko ak waa ares mu mel ni waa ares mu mel ni contrat ba nag ah yëglikaay bi xam nañu nag daa mel ni daal expiré daal def na ko parce que nag boo xoolee la ko indi nag mooy coronavirus bi moom nga xam ne lu bare bari ren yàq na ko ci àddina bi moom moo indi loolu rëg-rëg nag ku ne xam na ne euh, gis nañ combat bi mu jongante woon fii Sénégal ah muy combat boo xam ne neexoon na trop fa nga xam ne moo doon ca esplanade du grand théâtre ci MMA bi mel ni moom MMA fi mu nekk nii ah mu ngi ciy dugg bu baax baax ñu ko ñaanal rek mu ciy réussir mook bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi koy eh, ne moom la njëkk a gis mu di ko euh, euh, mu di ko def comme mbër waaw ba tey ki nga xam ne moom mooy Khalifa Diouf sept fois champion d'Afrique de judo moom daal la mu xam ne ah jàpp na ne mbër yi amuñu seen place fa nga xam ne moom mooy sa ca CNG ba ah loolu la nga wax de waaye man dama naan man maa ngi moom bokkuñu xalaat ndax mbëri nag ay pratiquant lañ ku ci pratiquer sport ba bàyyi ko defe naa ne boo wonee lu war a mën a tax nga jiite ay nit war nga mën a jiite ay nit man sama gis-gis moom nag xëy la mu wax gis-gisam la parce que tey mbër mu mel ni Mohamed Ndao Tyson ku mel ni Manga 2 ku mel ni Yaxya Jub ni ba ci ñi ba ci Tapha Guèye ñoom boykeer gi la dëgër ak ñi di pratiquer yaakaar naa ku ci ci sama gis-gis war nga war nga mérito mën a am loo war a doxatal ca CNC bu fekkente ne am nga capacité ak niveau yi lay tax ma jàpp ni mérito wuñ ko daal mu wóor ma ne kii lañ ko jox mënu koo doxal waaye bu fekkente ne ndax tey maa ngi de ku ko dénk wàllum simple damaa yaakaar na war na ko mën a doxal ndax lu mu xam la ci sama gis-gis yax yi jub yi ki ni boo ko ko dénkoon même chose yaa ngi dégg keneen ak keneen noonu keneen ak keneen noonu waaye nag wute xalaat mooy tax wala wute bëgg-bëggay tax ma yàgg maan marchandise yi di jar noonu la demee boo demee marché coow la nga fay dégg lépp du ëpp xuloo waaye jaay baak jënd ba la ku ne jënd la nga bëgg la lay waral coow la bëri waaye xuloowunu ba tey bu nu continuer bira seen ak yu beesam yëglikaay bi record a xëy ñëw ci ba tey mu mel ni ki daal doxalin ba ah mi nekk nii daal ñu koy ñaanal rek mu réussir moom bira loolu daal lañ koy ñaanal di ko ñaanal bépp sénégalais di ñaan tamit réew mi ah yàlla def fi jàmm rek barke nabi Moustapha sallallahu alayhi wasallam mais di féliciter suñu grand frère Lamine Samba di ko ñaanal yàlla sëyam boobu yàlla na ko jig muy troisième femme muy grand boo xam ne vraiment bu am ouverture la ci ñun ay rakkam à chaque instant bu ñu dajee mu ñuy encourager di ñu conseil di ñu gëmloo li ñuy def kon defe naa itam ku mel noonu su yàlla defee tey mu am ñetteel ñu ko ñaanal yàlla mu am ci ndam di rafetlu tamit li Youssou Ndour def ak li Farba Ngom ndax ku xam ne ne Balla Gaye Ndour bi génn bu yàggul doomam bii di bëri di Youssou Ndour Youssou Ndour la ko tudde bu super étoile kon defe naa bu génnee àddina Youssou Ndour yebal fa délégation ñu dem taxaw foo defe naa loolu rafet rafet rafet la muy lu am am solo mel ni àddina noonu la demee Farba Ngom tamit di ab député nekk maire Agnam moom itam ku ne xam ne ne goro la ci El Hadji Mansour Mbaye te ku ne xam na ne El Hadji Mansour Mbaye ah donte nekkoon ab reporter waaye ku ne xamoon na digganteem ak Mbaye Guèye yaa ngi dégg tey doomam ji nga xam ne moom mooy maam Cheikh Cheikh Mbaye ñu koy nuyu di ko ziar suñu waay mu ànd ak Gris Bordeaux ci yónnit boo xam ne Far Ngom moo leen ko yónni ci mbay géey mi nga xam daan nekk hôpital wala mu ngi ci clinique di faju pour mu dem gën ko jàppale la nit ki bu delloo ci yenn moment yi mu feebar ñi ci kaso yi tamit ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla fa ñu nekk yàlla nañ fa génn ak jàmm jàmm jàmm dellusiwaat ci société bi ci ñëkk mérito ndax itam àddina tëddee noonu rek ay ndog-ndog day ñëw di nuyu waa Campenal rawatina ka nga xam ne nag moom mooy sama jigéen di suma xarit chef Binta ja nekk foofu nekk garde pénitentiaire di nuyu seen kilifa tamit muy Bokande moom mi nga xam ne mooy leen yilif colonel Bokande di ñaan yàlla jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal yàgg maar